Madame euh, Seynabou Ndiéguène donc euh, euh, présidente du conseil d'administration du petit train de banlieue. en fait euh, Idrissa Seck ku ko xam xam ni nitu dil la ak njublang ak fourberie ndax ku xam ni président Macky ku Sénégal xam nañu que le président Macky a été élu par 65 pour cent donc ça veut dire que Sénégalais dañ ko wóolu ba jox ko askan dañu jox ko reenu dëkk bi. donc actuellement déclaration mi muy def fa ko defee sax la ko war woon a defee parce que buuru bu sëñ tuubaanee ne ñëw leen sant leen ma yàlla yàlla rek lañ fa war a nekk di sant waxu politique sax nit da nga ko war a sax rus si bërëb bu sell boobu lu toll nii dëkku Xaadimu Moustapha ji ko fa wax surtout que deful lenn lu dul xasteeg wax wax ju bon mais Idrissa Seck coutumier des faits ñëpp xam nañu ni Idrissa Seck ay diil la xam ne xam moom defoon na ni moo jiitu yàlla def ne quatrième président moom la te xam na ni fi mu nekk nii quatrième président yàlla def na Fatick la juddoo yàlla def na doomu Siin ak Fuuta la donc wax ji jeex na Idrissa nag xelam da kaa wër ndomba booba ba léegi Abdoulaye Wade euh, galgal na ko Macky Sall dem na ko à fi mu nekk nii ni nga maire yi lay perte ak euh, kuy perte ay kuy dem ba xam ni soo xoful woon perte maire Thiès yi xam nga ni dootoo war doon borom dëkk bi Idrissa Seck na xam ni borom dëkk bi président 65 pour cent lañ ko falee actuellement ñun dañuy liggéey gouvernance sobre et vertueuse couverture maladie universelle couverture maladie universelle PUDC les bourses familiales actuellement ñun tal nañu laneen lu dul ji xastanteeg ji ngàññante fi mu nekk nii askan wi la ñu tal le président Macky Sall a dit qu'il n'est pas là pour enrichir les bourgeois ne ñëpp kuy nekk am ndombok tànk ku ko amul yëpp nañu ànd liggéeyal askan wi alalu réew mi duñ fi nekk di ko saax-saaxee donc ñun loolu la ñu am lu koy tontu muy bourse médicale euh, bourse euh, familiale yi euh, couverture maladie universelle entre autres ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñu commencé woon tey à l'actif du président seulement ba mu defee ñetti at ci pouvoir maa ngi leen sant di leen gërëm